pandaw ma ko bon ressemblance physique nit ñi wax nañ ma ko. Mhm. mais musicalement nag yàlla yàlli la wax. dëgg fa yàlla ak yàlli bokkul. yow doo impro ngaa ko di impro. mais impro laa la wax waxuma la Sénégal njaay ba mu jeex maa fi dàq impro. loolu kenn laam laamee wu ko. Mhm. dama ko def ci mbedd mi. bokkoon saay fa am na ñoo xamante ne su ma bokkee duñu bokk te saay fa yi ma bokk li ma gañe saay fa dama gañe ba mënatuma ko compter dama dem ba su ma demaatee saay fa dañ may naan doo bokk. Euh, salaamaaleykum internet du Sénégal alors tey ñu dalal fii MNM ñëwoon na fii ci ba mu génnee single veux-tu m'épouser récemment mu génnee beneen son boo xam ne euh, mbëggeel la d'accord bu ci la ñuy waxtaan ak moom ak euh, mi ngi waajal benn événement tamit bay bàyyi la nga nuyoo ak présent nuyu internet maa ngi jaajëfal ci invitation bi di nuyu internet yu ñuy seetaan yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Grand Dakar aussi ak waa Thiès ak waa Diobass. Mm-hmm. alors MNM veux-tu nga njëkk génnee. son bi euh, demande à mariage la woon nga ñëwaat génnewaat beneen son mbëggeel pourquoi nga tegale ñaari son yooyu mu nekk ñaari son mbëggeel bon yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee première son bi ñoo ko defoon comme genre demande en mariage donc ñun ñoo préféré woon des ci même ci même logique bi quoi en fait parce que comme dañ defoon demande en mariage et que bëgguñu woon jékki-jékki rek jàllaat ci beneen étape ñu ne pourquoi pas ñu des ci même ci ci même logique bi ñu indi benn son boo xamante ne genre moo tax ñu génnee suñ deuxième single tuddee ko mbëggeel donc choix bi loolu la woon quoi mais du ci benn benn affaire boobu noonu sans autant jàll ci leneen. Mm-hmm. alors seetaan naa sa émission yu bëri yoo xam ne da ngay rap. Mm-hmm. lu tax lu tax lu euh, deuxième single bi defoo ko en rap. au lieu nga def ko nga defaat ko benn benn. bon yaakaar naa ne même style bi. waaw mais bu dee son rap dinañ ko génne. lépp comme ni nga ko waxee seetaan nga ay vidéo yoo xamante ne gis nga ma doon rap mais bon comme dañ defoon première son gis ni que ni lii fii la yem après ñu ne pourquoi pas ñu yeggali ko ba mu yegg fii après ñu jéem a jàll ci étape bu si topp quoi donc choix bi loolu kese la mais bu dee son rap dinañ ko def incha allah. Mhm. loolu est-ce que du tardel un peu parce que nit ñi euh, boo ne rappeur nga wala bokk mus mus kii artiste nga nga génne ñaari son yoo xam ne ay way la est-ce que mouvement hip hop bi dañ naan est-ce dañ sax naan non booy bi day nooyal. <laughs> non je pense pas parce que hmm. yaakaar naa ni tamit bon. bu dul dara ñun ci ci rap lañ tàmbalee et bu dee respect mbedd mi donc def nañ ci ay weeri weer ci mbedd mi pour mën a am respect nit ñi pour mën a am reconnaissance tamit ci mbedd mi. Mm. donc la fait ñu ñëw génnee deux singles pour man munul munul munul munul dindi respect bi parce que lu ñu def tamit euh, ay artistes lañ bu dul dara donc des fois ay inspiration fu ñuy la ñuy dikkee que dañuy fil benn affaire. foo que ko ñun ñu génnee ko pour mën ko mën ko exploiter gars yi mën ci gis seen bopp donc du question que MNM rap lay ko ci rap bi laa war a yem mën naa rap mën naa def woy donc man maay xool pa tey li nga xamante ne moom laa gën a film ma def ko léegi par rapport ak publicu hip hop bi respect respect bi day xel di daw parce que genre wanu ma leen li tax respect bi war a dañ wanu ma leen ko même boo dégloo son yu ma génnee sax même bu fekkee yow nga ne doo déglu naa ko li tax nga danga may respecté veux-tu m'épouser bi euh, fan la la yóbbu est-ce que gis am nga ci satisfaction ba nga génnee son boobu noonu sa premier clip nga génnee ko nii. oui am naa ci satisfaction parce que bu dul dara nekk tey underground comme ni ñu koy waxee ñun waa mbedd mi. boo nekkee booy nekk ci tout tànk. di jëngatu rombo ñu lay reetaan. ah rombo ñu lay reetaan nan joli cœur. non waa dina am dina am sa quelques copains yi la koy tooñee parce que xam nañ fi nga fi nga tàmbalee loolu c'est normal parce que ki nga xamante ni xam nga MNM. bu dee da nga ko xam avant muy def single wala muy def clip donc su defee lii nii mun nga am mun mun na la mun na la bett quoi mun nga am mbetteel parce que xamoo ko woon ci moom et pour man tamit loolu lañ si doon jublu pour mën a bettaale public hip hop bi wan leen ni que ni en dehors de MNM bi doon teewal ci mbedd mi ci saayfa yi ak compétition yi am na leneen lu nekk si moom quoi donc bëgguñu woon tënku ci benn affaire parce que am nañ ouverture boo xamante ne mun nañ ko won Sénégalais yi mun nañ ko won public bi ci loolu lañ doon liggéey pour won la ko mais quant à yeneen moom mu ngi fi de. Mhm. est-ce que mais que ubbil na la ay porte yoo xam ne tey nit woo na la ci ne la franchement son bi nice na wala nit xam na la ci non retour yu bëri sax mhm. donc loolu noonu su ma si naree jaaraat yëpp yaakaar naa ni émission bi dinañ ci fanaan mhm. parce que déjà bon message yi ak yi ak ay grand yoo xamante ne tey jii nii comme respect bi ngay wax sànq nay grand yoo xamante nit ñi respecté na leen bu dañ bu ñu demee ba woo ma ci ci bii nii ci demande en mariage bi di la ci gën a ñaax di la ci gën a féliciter tamit donc tu sens ni affaire yi mu ngi avancer et que mu ngi nice donc respect bi nga waxoon donc mu ngi ñëwaat tey ci musique bi pour man artiste respect yow koy liggéeyal sa bopp par rapport musique bi ngay def respect mënul dañ ci style de musique bi nga ko utiliser. ça dépend yow ci ban contexte nga nga nga nga nga def sa musique donc pour man manque de respect bi fa lay jógee mais tant mu ngi nice tant que mu ngi mu ngi mu ngi carré pour man amul problème quoi. Mhm. alors ñu dem ci deuxième single bi mooy mbëggeel euh, peut-être am nga loo xam ne nag xaw ma da nga ko plagier xaw ma da nga ko foqati xaw ma dañ la see jox autorisation. nga jël kàddu di sama waykat boobu. naa koy nuyu suñu waykat. ah sa waykat la. <laughs> waaw suñu waykat. <laughs> nga jël nga jël refrain wayam. boo mhm. xam ne it la woon. Mhm. nga indiwaat ko fàttali nit ñi. Mhm. Euh, lu tax loolu nga choisir ñu di naan ndax defaat na donc euh, comme ni ko gars yi di waxee ñun ay sénégalais lañ te dañ dañuy fier tey ñu gis tey suñuy grand yoo xamante ni am na benn niveau bu ñu yóbbu musique bi quoi donc loolu suñu fierté la te bu dul dara bon man Carlou D dama ko yàgg fil personnellement nag lay wax. lii nii avant maa def rap la avant maa def. musique avant moom rabatul. non mais <laughs> xam tey jii nii Carlou D artiste la moom jamono bi muy man Kalou de ba mu koy njëkk a déglu mooy première son bu mu doon way Serigne Touba su ma juumul mooy muy naan sa jëf ji wër na àdduna donc mu nekkoon son boo xamante ne dama ko doon déglu en boucle maa ngi yoroon benn MP3 du ko fàtte. di ko déglu en boucle même su may jàngi donc loolu noonu dama ko dafa des sama dafa des sama sama mémoire quoi dañul léegi nag quant ñu dem ci son bi mooy li ma la wax feeling la man dama dem dem ba son bi refrain bi moo ñëw sama bopp. refrain moo ñëw sama bopp te affaire bi tamit vraiment gisuma woon dara lu ma ci doon déranger ma ne pourquoi pas ma def ko ci defaale ko benn clin d'œil parce que artiste bu ma respecté la et que la boo xamante tey am na tey lu mu lu mu def ci musique sénégalaise quoi donc tey jii nii reconnaître dama ko bëggoon jaajëfal di ko di ko wan ni que ne te am na période yu ma tolloon moom musique am daf ma doon yóbbu feneen quoi donc affaire bi message bi loolu kese la mais du question jublu ci leneen ak leneen ak leneen. Mm-hmm. juste di ko wan ni respecté naa musique am fil naa lu muy def et que maa ngi koy ci jamono yu ma ko daan déglu. ba tey jii mais est-ce am nga si retour Carlou D parce que euh, euh, artiste bi yaa reprendre son mm-hmm. est-ce que dem nga envers moom wax ko déjà reprendre nga son bi ak moom est-ce que am retour ci moom. waaw si si yaakaar naa ni ñun def nañ li ñu mënoon quoi avant avant même ñuy ñuy avant même sax ñuy enregistré son bi ba ñu amee ba ñu am ba ñu amee tempo boobu noonu ba ñu ba ñu jubluwee pour def ko sax jëm nañ démarché pour jéem a am link ak moom mais bon par la suite moom nekku fi woon léegi pour ñu jotoon ko da doon yombu léegi bon on s'est dit ni comme moom Baye sénégalais la ñun ay sénégalais lañ musique am sénégalaise yee ko moom donc dañ koy def quoi ñun xam nañ ni moom Baye Fall la yooyu amu ci problème te par la suite à ma grande surprise koor bu may def émission ak euh, Kalza ak Oli bi RFM xaaruma ko ci woon bon moom dugg na wax lu nice te di ko moom en personne dugg na si wax ci lu nice loo xamante ni man xaaguma ko ci woon mais tamit bettuma woon ci moom quoi bettu ma woon ci moom parce que. xam naa lan la la wax euh, ba mu la woowee déjà est-ce nga loolu mu woo la. man xaaruma ko woon wax dëgg fa su ma yow wax dëgg rek te yàlla tax xaaguma ko si woon donc bu demee tey ba fil fil son bi wax ni que ni déglu ni ko déglu na son bi et que son bi moom da ciy gis boppam mu ngi koy sentir et mu ngi mu ngi may ñaanal li nga xamante ne tey mu ngi koy ñaanal boppam donc loolu tey fierté la mbégte la tamit loo xamante ni genre munuma ko wax merci ba merci bi am fu mu yem donc man dama koy bàyyi ak suñu borom quoi parce que munoon na ko si bañ a fekk munoon na ko si bañ a fekk parce que jeune talent boo xamante ne tey. dafa nekk ci yoon di def ay affaire mu def la benn clin nii nga intervenir wax ci yu naaj yi nii yëpp man lu mu wax yëpp mënu si jaagaat parce que dafa dafa gudd dafa bëri wax dëgg fa yàlla di ko si jaajëfal waaw franchement parler. Mm-hmm. baa jooyoo ci émission bi ba mu. <laughs> non geng sa laa du ma jooy. waaw alors euh, mu jàll ci son bi nag gis nañ ci originalité mm, ne dafa mel ni tourné woo fii. waaw Joal Fadiouth lañ ko tourné. Mm, ah séeréer nga. c'est boo xoolee sax xam nga. <laughs> alors gis nañ gis nañu un peu nga wane beneen beneen facette boo xam ne mën nañ ci feddali mbëggeel. ah lu tax nga choisir Joal Fadiouth te place du souvenir nekk fii rafet ba tey. du souvenir gars yi dañuy tubaab tubaab lu man ni ko ah. waxee séeréer la village yu nekk ca àllukaay na ginnaaw àllukaay ñi donc pour man Joal bon Joal île bu nice la avant tout et bon ñun dañu buggoon wane beneen affaire boo xamante ni du done Dakar quoi. du doon Dakar parce que boo xoolee suñu premier clip à chaque fois ñun dañuy jéem a indi leneen loo xamante ni soit du ma ne dafa manqué dafa manqué que gars ñu ngi def clip yu nice mais ñun ñooy bëgg di dugg ci wuq yu gën a wuqe yi wan ni que ne fii ci Sénégal la bokk pour jëg gën ko fësal bien vrai que dëkku dëkkuma Joal mais suba dinaa ko def feneen ak feneen ak feneen mais Joal laa fi te xam naa ne Joal am na culture boo xamante ni tey sénégalais yi ñu si bëri réeré woon nañ ko mbir am na ay coin yoo xam da taxaw nit naan la fii ban côté la ci Joal donc pour man bu dara tamit euh, loolu euh, am am na am na am na am image bu mu bu def ci clip bi am na impact bu mu def ci clip bi di profité waale ci occasion bi di remercier waa Joal yëpp parce que ñoom jàpp nañ ci tournage bi yombalal nañu affaire yi donc mooy loolu quoi affaire yi macha allah vraiment. Mm-hmm. gis nañ fi tamit côté côté bi ay boole leen ci clip. non mooy li ma la nee naa la connexion bi moo gaaw connexion bi c'est tellement rapide parce que boo xoolee ñun yàgguñu fa yàquñu fa. lu mel naan da yàggoo leen fi waaye defar ngeen fi donc yaakaar naa ni ñoom ñoo mel noonu ñoom ñoo bëgg gan aussi ñoom ñoo yaatu tamit donc culture boobu ñun ñoo ko bëggoon wane parce que ci ñun la bokk quoi ñun ci suñuy tradition la bokk peut-être bon ñun ñun ñun booy yi juddoo Dakar amuñu. chance dund yooyu noonu amuñu amuñu opportunité dund yooyu noonu mais c'est juste que ni pour wan gars yi ni que ni lii ça existe c'est des choses yoo xamante ni nit ku nekk da nga war a xam sa cosaan da war a xam fi nga bokk quoi. Mhm. c'était juste message bu ñu doon jàll ci clip bi. Mhm. est-ce que yëg nga ni clip bi am na tuuti polémique nag. polémique c'est-à-dire. ah tent sa bopp bi. <laughs> waaw ku tent nag kenn ko fi am kenn benn benn artiste la ñuy xam kuy tent koo xam ne moom tent moom timbre am la. tent tembalam la. waaw mais man du tembre sax mais mais mais lugam moom daal su tent moom benn nit nañ ko fi xamee ñun ah Ablaye tent daal benn nit laa ko fi xamee muy Ngaaka Blindé nga jël toppandoo ko nga dem tent comme moom te xam ne am ngeen tuuti trait de seen ñuulaay benn la nga toppandoo ko ci clip bi daal di def xaw a ngaaka ngaaka lu noonu. ah tent de wax dëgg fa yàlla xaw ma ni woon moom moo ko moom déjà feeling la rek fii ñu bëri ñu ngi tent di. man yàgg naa def teint peut-être bon xëy na lii moo fës yow nga jël. polémique boobu ah xoolal rek. ah moom ngay toppandoo kon. non xoolal. ah dama jàpp ne moom ngay. da jàpp ni moom laay toppandoo man ma jàpp ni toppandoo ma ko bon ressemblance physique nit ñi wax nañ ma ko. Mhm. mais musicalement nag yàlla ak la wax. Ah, dëgg fa yàlla ak yàlla bokkul. yow doo impro ngaa ko di impro. mais impro laa la wax waxuma la Sénégal njaay ba mu jeex maa fi dàq impro. loolu kenn laam laamewu ko. genre du du lu ma jël rek ne ko maa ko collé sama bopp ama ko def ci mbenn mi plus de huit mois te fu ma dem jël ko. donc loolu du lu ñuy laam laam ba tey di impro nga ko da koy laal nii xool rek mu mu impro wala <laughs> déggoo ni wala ki ko hmm. def plus de huit mois dem bay impro ñu naan ndax lii nit war na ko mën sax donc loolu. nañ bàyyi woo ko. fan. Hmm. respecté naa ko artistiquement respecté naa ko comme ni ma respecté ma ko yeneen ma ko artiste artiste am yëpp. respect am na suñu diggante man artiste déjà booy def lu nice dama lay respecté mais kanta à toppandoo nit di copier nit no musicalement doo ko wax bu dee nag li ma tent moo tax nga ne dama koy toppandoo tent yàgg na fi te ñun gis nañ fi El Hadj Diouf tent fi keneen tent fi keneen tent fi keneen tent fi. kon daal moom moomul tent tent kenn moomu ko yow bu la neexee suba nga tent xanaa tent jagul xaalis tent xaalis lay jag di. donc ku mu neex nga def sa look léegi nag kantaan ak diw dafa toppandoo diw dafa diw dafa toppandoo diw bon boo ma xoolee nga ne damaa toppandoo ngaaka boo dégloo son yi nga ne toppandoo ma ngaaka donc loolu rek a nekk quoi. tey ngaaka bu la woon ngeen mm, kii nii battle impro <laughs> yow est-ce que woo yow ñeme ah, loolu loolu mm, risque boobu benn artiste Sénégal laa wax ki du ko laal benn artiste Sénégal amul taxaw ne ma kaañu impro. benn artiste benn artiste Sénégal laa la wax. wallaahi wallaahi ku ko si def. di nga ko rëccu lu leer laa la wax. Hmm. lu leer naa yow da nga xanaa da a wax yaa gën a taxaw. impro maa ko dàq Sénégal loolu kañ xanaa Sénégal jeex na. anglais yi nag xaw ma lu ñuy làq mais bu ñu doon làq sénégalais sax anglais yi maa ngi impro. Hmm. lu ma doon imp li bu ñu ko traduire ci langage bu mu mënti doon amul ko may tëkkale ci impro naturellement lay ñëw aw ma ci problème aw ci tàng ku ma si topp deux minutes doo dem kon pare nga pour battle daal ngaa ko blend ma xool ba xam. ku wala déggoo li ma ñoom duñ ko laal loolu kenn du ko laal fii tëggal nañ fi artiste ba sonn kaay batal ak MNM dañuy bàyyi saay fa bu ma dem am na ñoo xam ne su ma bokkee duñu bokk loolu dafa yàgg li may wax ni mu ngi ci net bi li may wax ni ay nit fekkee non mais c'est des choses yoo xamante ni ay faits réels la quoi mm-hmm. ko def ci mbedd mi bokkoon saay fa am na ñoo xamante ni su ma bokkee duñu bokk te saay yi ma bokk li ma gañe saay fa dama ba mënatuma ko compter dama dem ba su ma demaatee saay fa may naan doo bokk donc kooku noonu tey nga naan ko diw wala diw diw man damaa samay preuve te benn artiste laa wax amul tu taxaw naan ma MNM ah lii nag moom leer na euh, alors clip bi ñaari kilip bi génn na xanaa bii di ñëw nag moom di nga ñu xaw a mu xool impro bi sax foofu noonu est-ce que di nga ñu rabal sax. <laughs> impro jagul clip impro moom yomb na. ah mais freestyle noonu. freestyle moom xam nga tey ki taxaw tey di la improviser ngay yaakaar ne kii da ko bind xam nga ne kooku soo ko nee bindal loolu matuma sax. deux minutes léegi improviser ma yow caméraman bi nu muy def nii bi dafa toog mi su mu koy teg artistes yëpp laay gën a foog li nekk seen xel ak li may def bokkul ak lu ñu foog. wii mi su koy teg dangay tëdd man damay jóg yow yaay kiy fon temps man damay job microphone ay ca jox ma say nopp réew mi su koy teg dam lay faj ndax danga nga wopp maa lay naan ni topp gis nga booy bi dafa sopp mën nga ko bañ mais waa koñam dañ ko sopp big town la ma dëkk mbëg bi may teg maa kiy teg rap bu dëgg ay ayca gaawal rekk nga sëgg tama non maa lay tëgg mel ni Duudu Njaay rap bi su koy teg doo ma gis ndax danga gumba waaw góora ko fi tous ne ko waaw kumba ramb yi ma koy teg tekkoon gis nga nii lay demee damay teg ci réew mi ay ca booy maa lay xamee dam lay fóot fóot réew mi ma ngi koy teg ni Balla Gaye dam lay mboot mboot teg koon gis nga ay ca danga may sot sot fii ba suba duma bàyyi te duma bind ah, ngaa ko kay fay <laughs> alors euh, ñaari clip génn na alors lu ñu mën a xaaraat ci ci ci sa poursuite carrière bon déjà yaakaar naa ni di waajal benn concert le 10 juillet fee ci MCU maison culture urbaine bu Wakaam di ci woo ñëpp quoi ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw teew ci événement boobu noonu ñu ñëw def show bu nice à part loolu tamit ñu ngi waaj a génne suñu album ci été bi xëy na bon après concert bi dinañ génn euh, wax date de sortie bi et tout ça di wax gars yi nañu xaar parce que déjà bon album bi moom nit mën na ci xaar lu ne parce que bu dee rap ci lañu jàngee bu dee musique tey dem nañ ba am ci ouverture boo xamante ni yem nañ quoi mais gëm nañ ni que ni mën na am lu mu def mën na am benn affaire bu mu apporté ci hip hop Galsen mën na am benn affaire bu mu apporté ci musique sénégalaise donc di wax gars yi ni que nañu connecté wu nañu nañu nañu nañu flow nañu bàyyi xel parce que ñu ngi ñëw ci 2021 bi incha allah rabi dina kaare le 10 euh, juin. le 10 juillet juillet. ah le 10 juillet le 10 juillet. ngay joué waaw incha allah rabi. d'accord mooy sa premier spectacle wala. waaw mooy sama premier concert. doo invité Ngaka Blindé kon. Ngaka Blindé alors alors alors mais album album yaa ngi koy pare. waa si moom album bi dinañ ko génnee ci été bi incha allah bon mhm. après concert bi moom dinañ génn wax gars yi ni que ni jour tel dinañ génnee suñu album mais job nañ ko ba pare ci dernier réglage yi la ñu nekk dañu xaar 10 juillet bi jàll dat bu baax bi. tous tasaak ñu tasaare foofu noonu après ñu jàll ci leneen li ko d'accord ok maa ngi lay jaajëfal di la remercier si sa jaar fii ah, koy gërëm ak koy di la jaajëfal di la remercier waat di am mbégte ak contentement jaagaat fi tamit di jaajëfal internet yu ñu doon seetaan yëpp bon tamit di jéggalu tamit bu dee damaa wax loo xamante ni dafa. jéggi dayoo wala nit jëlee ko neneen mu offensé ko maa ngi tuub bu baax lépp lu ma fi wax tamit mu jub suñu borom la parce que bon ñun ñëpp ay sénégalais lañ quoi ñun ñëpp lenn moo ñu soxal avancé loo affaire yi avancé loo mbir yi donc di wax te di wax ni ko tamit te am naa ci yaakaar quoi ak génération nouvelle génération bi nii ma gis am naa ci yaakaar ni que affaire yi mën na avancé gars yi mën nañ ci def lu garaaw di remercier waale sama waa label de production. muy waa impossible prod bon di wax ni que gars yi tamit nañu xaar parce que récemment am nañu ay artistes yu bees yoo xamante ni gars yi nañ leen découvrir bientôt gars nañ nañu ñëw le 10 dinañ gis ni que ne impossible prod dafa ñëw pour changer game bi pour renouveler game bi parce que fii ay home studio ñoo fi nekk di woote seen bopp ay label. yaa ngi tudd. <laughs> voilà merci si si dalal. waaw kontaan nañ ci bu baax. incha allah. <laughs> merci beaucoup. <laughs>